euh, c'est un problème crucial aujourd'hui, c'est un drame national aujourd'hui, et euh, nous nous sommes euh, posés beaucoup de questions. Et en nous posant des questions, un groupe de jeunes, des citoyens, euh, des groupes aussi, euh, des mouvements citoyens du Sénégal se sont retrouvés pour euh, effectivement organiser une manifestation très prochainement.

par rapport à la conférence de presse et la manifestation qu'on va organiser, c'est le collectif 480 qui regroupe tous ces mouvements-là aujourd'hui qui se tient à votre disposition. Donc c'est pour ça que sans plus tarder, je vais passer la main à Mme Aydenian pour euh,

Malheureusement, des centaines de nos concitoyens qui les empruntent finissent dans les entrailles de l'Atlantique. Nous sommes assaillis par des images bouleversantes et traumatisantes qui nous interpellent tous. Malgré tout cela, nos autorités et les autres segments de notre société ne prennent pas la juste mesure de ce drame et continuent leurs activités comme si ce spectacle insoutenable relevait de l'anecdote ou du fait divers. Face à cette situation, nous avons jugé qu'il était temps de prendre le taureau par les cornes et d'attirer l'attention des décideurs publics et des populations quant à la nécessité de trouver des solutions idoines à cette équation macabre. Ainsi, après plusieurs échanges avec des personnes et associations, nous avons pris la résolution d'organiser une marche sous la forme d'une procession silencieuse allant de la place de la Nation à, au rond-point de la RTS, pour nous incliner devant la mémoire des défunts et témoigner notre compassion à leurs familles et proches, sans oublier de marteler la gravité de l'heure et l'urgence dans une analyse approfondie du mal et la nécessité de lui trouver un remède à travers des mesures fortes et efficaces. Cette manifestation sera placée sous le sceau de la citoyenneté. et de la responsabilité sans coloration politique ou politicienne, car le sujet est suffisamment grave pour faire l'objet de querelles partisanes. Nous comptons sur la mobilisation de tous les indignés à travers une synergie de toutes les actions, allant dans ce sens pour, endiguer ce fléau qui a déjà fait assez de dégâts et vu couler trop de larmes. Nous appelons tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs à s'approprier l'initiative en vue de donner de la résonance à ce plaidoyer. La presse est appelée à jouer pleinement son rôle pour relever ce défi qui ne doit laisser nul indifférent. Il est temps d'œuvrer pour un changement de paradigme afin que l'espoir revoie le jour pour que notre jeunesse ne soit plus au mur au point de dévier les vagues de la mort pour une vie meilleure. Mobilisés, C'est le collectif 480. Euh, je vais laisser euh, au camarade euh, je me présente Aïda Niang, membre du, collectif 480. Euh, <coughs> Donc man c'est Okay. donc man maa ngi tudd Saliou Ndiaye est-ce que mën nañu ñoom mënuñu ok donc maa ngi tudd Saliou Ndiaye membre du collectif 480 donc comme ni ñu ko waxee léegi ci euh, ci tubaab gis nañu ni fan yi ñu nekk ci weer yi ñu nekk am nañu ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi dem ci géej gi pour dem uti dund bu meilleur ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi nekk ci biir réew mi gannaaw bu situation bu désastreuse bi nga xamante ni réew mi mi ngi ci nekk ñëpp seetlu ko ñu ñu bëri ci ñoom. ñu wax xayma leen ci ay plus de quatre cent ñi ne cinq cent ay ndaw faatu nañ ci ci condition yu méttee méttee métti ci faatu faatu yooyu am na ci ñoo xamante ni ay xale yéen loo xamante ni ay xale mineur lañu ñoo xamante ni amuñu 18 ans ci gën a yéeme mooy xale boobu nga xamante ni ñu ngi naan atam matul 14 ans am na ci sax certains yoo xamante ni ñu nekk fële ca Îles Canaries nee na ñu am na ay jigéen ñu fay wàcc daal di yor ay bébé mu doon situation bu méttee métti ci situation boobu mu metti nag sénégalais yu bëri du ko ñaawlu beaucoup de familles sénégalaises ñu ne ci ab dëkk endeuillé ngay ngay dem ci ay villes côtières entières dëkk yoo xamante ni dëkku tefes la dëkku ndox la nga dugg ci kër gis fa fukki wala juróom ba juróom-ñetti nit yoo xamante ni ñoo bokk kër faat bi daal ciy faat nga am dëkk yoo xamante ni lu mat cinquante personnes ñàkk nañ ci seen bakkan ci loolu nag ñu gis ci benn li ñuy tuddee indifférence ñàkk jox cër bi nga xamante ni état du Sénégal autorité yi nga xamante ni ñoo war a régler problème boobu ñoom ñàkk nañ ko jox cër mbir moomu nga xamante ni tragédie nationale la tragédie humaine la boo xamante ni mi ngi faa faagaagal li ëpp solo ci réew mi mooy ay ndaw ci ginnaaw boobu nag ci lañ amee ay waxtaan ay waxtaan yu xóot yoo xamante ni ñi ko ñi ko fekkee ñi ngi nekk ci société civile am ñoo xamante ni ay personnalité indépendante am ñoo xamante ni nekk ci yeneeni organisation yu facilité ñooñu nag ñoo toog ñu waxtaan ñu ni kat na ngir ñu woote fii ci ndakaaru benn marche bu mag a mag boo xamante ni marchum dëj lay doon c'est-à-dire que doxum boo xamante ni doxum doxum dëj lay doon dañuy tuddee procession silencieuse boo xamante ni képp kenn du wax mais pour marquer suñu indignation suñu mettital li nga xamante ni moo ñu naqari ci situation boobu ñu partagé ko avec des millions et des millions de familles sénégalaises woote woowu nag ñu ngi koy def samedi bii di ñëw incha allah à partir de 15 heures ñu ngi koy woote fële place de la nation ñu ko doon wooye place de l'obélisque ñu war fa jugee ci mbooloo mu takku ànd ci góor jigéen mag ndaw ñi nga invité ñëpp invité famille yi nga xamante ni les famille endeuillées invité ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk mool yi invité yi nga xamante ni secteur d'activité yi nga xamante ni nag ñoom ñëpp depuis ay at a nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax seen i seen i jafe-jafe état bi daal du réglé wu ko ba tey ñu ëpp ci ñoom doon ñu ngi jël bi ñoo ñëpp ñu invité leen pour ñu dajee ca place de l'Obélisque samedi bii di ñëw ci bu ñetti waxtu jotee ba ba ba 18 heures ñu daal di def marche silencieuse dem ba buntu RTS su ñu fa yeggee mu am ay waxtaan yu am solo yoo xamante ne danañ ko fa def waxtaan yi nag ñu koy jëmale ci ñi nga xamante ne mooy kilifa yi ne ci réew mi ci segment buñ mun a nekk du doon kilifa nguur gi kese mais dinañ ko jëlee ci bépp kilifa boo xamante ne mi ngi yeewoo ci réew mi ñu wax leen ni kat drame bi jot na ñàkk solo bi nga xamante ni sunu état suñu état bi mi ko koy jox mooy les pouvoirs publics jox nañu ko ki ci njëkk mooy président de la République ñu ñàkkal ko fayda ñàkkal ko solo lool ci réew moo xamante ni ba ñu tollee ci fukki nit ñu faatu nañ ci corona bi rek daanaka dañoo tëj réew mi yëpp dañoo def couvre-feu dañoo génn 1000 milliards dañoo tëj entreprise yu bari dañoo fermer des marchés tey ñu am 480 morts ci ay xale mu am benn indifférence totale keroog bi ay ndaw jugee sax di def deuil national amul benn communiqué du gouvernement sénégal amul benn responsable état bi Sénégal boo xam te ne bu marqué nañu indigention indignation mu doon naxar bu métti métti métti et naxar boobu sénégalais yi ñu ngi koy dund ci seen i kër ñu ko dund ci seen i néeg ñun dem nañu dem nañu Mbour dem nañu dem nañu euh, Fass Boye dem nañu Jogo dem nañu Lompul dem nañu ba Ndar gis jafe-jafe yi nga xamante ni ay famille yu méttee métti ñu ngi ci ci dëj bu méttee métti te pourtant sax. même sur lu alal sax soxla ñoon kat ñi nga xamante ni ñoo jiite réew ñu taxaw seen i wet hmm. puisque loolu amul nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw ñu tase ndakaaru ñi munta ñëw ndakaaru nañ ko def ci seen i gox ci seen gox yi ñu nekk fasantikoo ku ku munta déplacé wu sax na nga sol lu ñuul sol lu ñuul marqué deuil nationale bi foo mun a nekk ci réew mi fii ba Kidira fii ba fii ba Sédhiou fii ba Ziguinchor fii ba Kolda fii ba Tamba ñuy wax sénégalais samedi bi di ñëw ñu marqué ko marqué journée la boo xamante ni kat ndax xale yooyu dee ci géej gi jar nañu ko seen bakkan jar nañu ko pouvoir public public yi bëgguñu ñu wax lu jëm ci loolu ndax pour ñoom loolu dafay traduit seen échec ñu ne nag buñ leen may occasion boobu nañ ko wax wane ko ba adduna bi yëg ko su ko defee sax seeni famille mun ci am lu ñuy tuddee as caslaay mun a dormir tranquille ci loolu nag la ñuy woo ñëpp jërë ngeen def amee ay question réponse yoo xamante ni bëgg nañu ko am pour des compléments d' information mën nañu ci jëm waaw. El Malick Seck Sénégal 480 euh, moo di ngeen wax chiffre bi mu ko jëlee euh, beneen bi tam mooy est-ce que yéen euh, am ngeen utilisation pour am pour def marché bi benn question bi tam mooy est seen entité bi. kon yéen xalaat ne nguur bi def deful benn action ak bi réussir na wala mu ci jéego wut ay psychologue yoo xam ne ñu mën a assisté euh, parents yi nga xam euh, donc comme ni nga dëkk laaj mi muy chiffre 480 bi chiffre symbolique la ndax tey soo xoolee ba léegi nii amul benn organisation boo xam te ni def na un recensement plus ou moins complète ci nombre de victimes yi nga xamante ni ñoo am ci ci ci mbëkk mi. et d'ailleurs loolu responsabilité état moo ko waroon def te dañu waroon tollu kat ne kat sénégalais yi nga xamante ñu ngi ci géej gi di dem ñaata ñoo ci ñoo ci ñoo ci rëcc egg ca élielé ñu recensé leen ndax am nañu ministère bi nga xamante ne mooy yor sénégalais de l'extérieur boo xam am nañu sax ministère de l'intérieur bi nga xamante ne li ñu tuddee sécurité nationale au plan national moo ko géré ANSD mi ngi fi donc ñooñu ba tey fournir uñu sénégalais yi benn benn documentation bu claire précise les organes yi nga xamante mooy les ONG aussi déggooguñu ci chiffre bu officiel précise que ci ñaata sénégalais wala ñaata africain ñoo dee ci mbëkk moom waaye li leer ba leer ba leer yépp mooy ëpp nañu ëpp nañu 500 ëpp nañu 500. chiffre 480 bi nag mooy chiffre bi gën a symbolique bi nga xamante ne xale yu ndaw yi ñëpp ñu ngi koy wax ci réew mi ci loolu la ñu tënk ñu tuddee ko turu collectif bi. beneen bi nag mooy ci wàllu autorisation bi autorisation bi génnagul waaye nag déposé nañ ko en bonne et due forme déposé nañ ko au niveau de la préfecture. préfet moom moo am temps wam bi nga xamante ni moom la ko yoon jox mu mun ko étudier pour mun a xool kan la ko mun a xool ba mun a daal di joxe autorisation waaye nag ci ci suñu yaakaar ci suñu yaakaar mooy act activité bu symbolique bu mel nii bi nga xamante ni ce n'est pas une activité politique bu mel nii yaakaaruma ni l'autorité préfectorale ci suñu yaakaar war na ci mun a am argument pour daal di koy pour daal di koy bañ loolu moom yaakaaruñu ko troisième question moo nekkoon. est yéen seen entité ak euh, xëy na waa yeneen société civile yi am nañu. ay yoo xam ne dinañu mën waaw fi ñu toll nii nag fii ñu toll nii dañu dañu dajaloo waxtaan jëm ci manifestation bi suñu paree manifestation bi dina am suite dina am yeneen jéego yoo xamante ne dinañ ko teg au plan national yu jëm ci assistance ak ci yeneen ak yeneen. xëy na nag loolu mu cee du egg gum léegi parce que dañoo ni sax moment bi du moment wax ci loolu li ñu jàpp ci moment bi mooy ñu mettre le focus sur la manifestation bi nga xam te ne procession silencieuse bi ñu jëm samedi suñu jógee ci loolu nag dina am toogaan yoo xam dinañ toogaane ak yeneen waxtaan yeneen ko waxtaanee ci ay ay borom xam yu fasantu ko ñu def des activités des des propositions yu jëm ci wàllu mbir moom. su nga ko def après que ñun déjà de base la ñu ñu bëggee un euh, euh, euh, manifestation le samedi. Euh, de cette manifestation, c'est une manifestation citoyenne sans coloration politique. Une manifestation pour appeler la population et jeunes à les, à les sensibiliser de ne pas prendre les pirogues euh, pour, pour, pour, aller euh, en, Europe, c'est-à-dire les sensibiliser et discuter avec eux, et aussi attirer l'attention de l'État pour qu'ils puissent faire beaucoup plus d'efforts et que les... pour qu'ils puissent faire beaucoup plus d'efforts et que jeunes puissent en fait avoir du travail et qu'ils puissent en réalité avoir euh, assez, assez, assez, de, assez d'indépendance pour qu'ils ne puissent pas penser à prendre euh, les bateaux. C'est l'objectif premier. Donc c'est une manifestation de deuil, une marché silencieuse où nous allons nous incliner euh, sur la mémoire des disparus, prier pour eux et aussi lancer un message euh, au, à, nos, dirigeants et à la population sénégalaise. C'est l'objectif Il y a une autre question Ok. Omar Mbow, RFM. Et après, vous allez continuer ce qu'il a dit en France, s'il vous plaît. Alors, au delà de la manifestation. En français. Non, voilà, voilà. Okay. Au-delà de la manifestation, si vous avez, vous avez parlé que vous allez proposer des